Welcome back to another lesson. In today's video, we are having grammar. We'll be learning how to use anymore, any longer, no longer. tey sunu leçon dañuy jàng naka la ñuy jëfandikoo anymore ak any longer and no longer mu nekk baat yu am solo loo ci anglais kon déglul bu baax te nga bàyyi ci xel it's your brother Serif Funkala let's go We use not mm, anymore or not mm, any longer to say that a situation has changed. des na jëfandikoo not teg lañ ci teg andi anymore lim la bëgg a wax rek mooy nga andi négation ba pare wax li ngay wax daal di ciy teg anymore wala nga indi négation mooy not any longer nga indi négation ba pare teg ci li nga ciy teg indi indi longer ngir lan to say that ngir wax ni a situation has changed benn situation soppiku na yaa ngi dégg loolu nag su ma la ko bëggee wax simplement dama naa la dañuy jëfandikoo any more ak any longer ngir wax ni menn mbir mu daan am amatul lu daan am amatul simplement mën nga ko jàppee loolu ci wolof dégg nga kon any ak any des na ko jëfandikoo ci anglais ngir wax ni menn mbir mu daan am amatul lu daan am amatul dégg nga mën nga ko bindee nii any more yaa ngi dégg xajale leen waaye nag loolu British English ñoo koy faral di def British English wala nga boole leen muy benn baat ci American English American English dina la leen bind boole leen mu nekk comme benn baat bu dee British English mi nag dana leen xàjjale mu mel ni ñaari baat dégg nga kon bu la jaaxal muk bu seen nit xaajale leen ngeen ko euh, def nga faute def nga juumte wala nit boole leen ngeen ko def na juumte ok any more and any longer go at the end of a sentence tamit dañ lay fan lañ koy teg kon soo xamul fan lañ leen di teg na ko jàpp bu baax a baax ñoom ñi ngi leen di teg ci jeexaatalu phrase bi dégg nga maam fi fin bi ci fra phrase bi fi jeexee foofu la ñuy teg eh, any more ak lan any longer dañuy dugg ci misaal yi wala exemple yi I don't drink alcohol anymore. I don't drink alcohol anymore. lan lay wax I don't drink alcohol anymore. sàngara I don't drink alcohol anymore. kon def daan naan sàngara kon nit ki lu mu daan def ba defatu ko ci la jëfandikoo anymore dégg def daan naan sàngara léegi si naanatu parce que bu fekkee du naan sàngara jëlul muy wax anymore I don't drink alcohol loolu rek doy na muy du ma naan sàngara mais I don't drink alcohol anymore mooy naanatuma sàngara kon gis nga anymore dama ko xaajale foofu mais loolu nag British English bi la bu dee American English bi mën na wax ni I don't drink alcohol anymore ñoo bokk nag nun leen di prononcé loolu nag ci bàyyi xel kon bindin bi muy spelling bi foofu rek la euh, wuute bi di am léeg-léeg I don't drink alcohol anymore gis nga wax ji benn la naanatuma sàngara kon danga nga gis ni fii nii American English dafa boole anymore comme benn baat beneen exemple Binta doesn't work here anymore Binta liggéeyatut fii xam nga suñu neexee mën na Binta liggéeyut fii rek peut-être musu fee liggéey mais Binta liggéey fii ak Binta liggéeyatu fi bokkuñu yaakaar naa lool leer na naañ ci wolof Binta doesn't work here anymore Binta liggéeyatut fii lool nag moom Binta liggéey fii bokkuñu I don't live in this neighborhood anymore. Dëkkatuma ci koñ bi. I don't live in this neighborhood anymore. Dëkkatuma ci koñ bi. I don't need you here any longer. Soxlaatuma la fii. I don't need you here any longer. Soxlaatuma la fii. man mi ni la soxlaatuma la fii ça veut dire que ni dama la fee soxla woon <laughs> dama la fee soxla woon dem ba soxlaatuma la fi ma ni la I don't need you here any longer I don't la fii gis nga kon any longer niñ ko jëfandikoo I don't need you here any longer soxlaatuma la fii any longer ak any more gis nga ñoom ñaar ñëpp ñi ngi leen teg ci jeexantalu phrase bi ñu daan ni Demba does not smoke anymore. bu la neexan nga Demba does not smoke any longer. Demba tuxatul kon Demba daf daan tux waaw ndax bu fekkoon Demba dawul tux jërul mun anymore wala mun a any longer man na wax simplement Demba does not smoke Demba tuxul. mais nag Demba tuxatul bokkul ak Demba tuxul ok mu ni you can also use no longer but no longer goes in the middle of the sentence nee na man nga jëfandikoo itam you can also use man nga jëfandikoo itam no longer no longer man nañ ko wax waaye nag but no longer bu fekkee no longer la goes in the middle of the sentence dafay nekk ci digg phrase bi kon ci biir phrase bi la no longer di link kon nag dafa wuute ak any longer any more ñoom ñi nga xam te ni dañ leen yóbbu ci mujj kàddu gi maanaam ci fin frage bi yaa ngi ciy bàyyi mais na jàpp ni no longer mook yi ñu jàngoon sànq ñoo bokk lu ñuy tekki muy any more ak any longer nañ ci xool ay exemple we are no longer friends nekkatuñu ay xarit we are no longer friends nekkatuñu ay xarit kon ay xarit lan woon mais doonatuñ ko I no longer live here dëkkatuma fii I no longer live here dëkkatuma fii gis nga dëkkatuma fii ah. kon dëkkatuma li ñu may maanaam mooy no longer I no longer live here. Dëkkatuma fi. She no longer loves me. She no longer loves me. Bëggatuma. She no longer loves me. Bëggatuma. Kon da ngay gis ni moom ñu ko dugal ci digg bi. Dégg nga. no longer loves me. Bëggatuma. Kon daf maa bëggoon. waaw bul wax nag warning moo tax mu wax la attention bul wax lii I don't no longer work here dégg I don't no longer work here ñaari négation yi jaru ko ne nga don't te moo ci loolu ni nga ñëw ni no longer no longer rek négation la dégg kon danga naa I no longer work here I no longer work here day woo dara I don't dégg simplement waxal I no longer work here liggéeyatuma fii wala nga ni I don't work here any longer liggéeyatuma fii I don't work here any longer kon soo waxee any longer da nga soxla négation comme li wax I don't waaye boo nee no longer soxla négation maanaam ngay indi I don't wala yu demee noonu su fekkee comp nga leçon bi bu baax defal ma deux phrases ci commentaire yi jëfandikoo anymore ak no longer ma xool ndax dégg nga leçon bi wala déet kaay làkk anglais lii moo nekkoon sunu leçon ñu leen di fàttale rek ñi nga xamante ni gan lañ ci kër gi ñu abonné waaw tey like di commentaire di wax li ngeen bëgg ñu leen di indi leçon yi ngeen soxla ba beneen yoon take care